mbokki reen yi koom-koom ñu ngi leen di eh, nuyu ñu ngi fii nag ci eh, ngent ngent fan la ñu ngi ci a eh, Thiès ngent Nasrou ñu ñëw nag ci benn tool boo xam ne a ah, ku ñu naan imaam Mor Talla Gueye moo ci saytu liggéey bu am solo bu mag a mag a mag loolu lépp dinañu ko leeral waaye ñu xam ne mbéy mi càmm gi napp gi bokk na ci luy développé. di sant di leen sant bu baax di leen gërëm euh, jëwriñ ji ci ci taxawaayu kër bërëb bi la bokk. dëgg yàlla expérience am ak doxalinam ak ay ay ay idéem daanaka tax na tool bi ak ak si foo xam ne sorin ci lool ndax ku am luy jamono comme yàlla day dugg day yëngu moom ci wàllu développement ci wàllu maçonnerie xalaat yi ci am ak yëpp xalaat yu bari na ñu ci def ci wàllu bassin yi moo ñu ciy indiqué dañu ci orienté. ban mën ci am ay résident yu bëri bëri mooy sëñ Malick Lom dëkkandoo ñoom ci ci gox bi waaw ci niire la moom wax waaw kon sëñ Malick Lom aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim alhamdulilahi rabbil alamin xanaa di kontaan rek ci fekke guñ fekkee émission bi mu nekk mbégte ndax it moom sunu imam xam naa ne mi ngi yëriñ ko fekk ci ci fii ci tool bi waaye nag mooy imaamu Nasru macha allah mooy imaam Baye Talla Gueye jumaa ji ngeen romb ci yoon bi moom la ko ku baax kii nga xamante ne moo sanc Nasru sëñ Assane Kane teg ko ci ci loxoom ak macha allah daara ji ne yéen ko fekk ci tool bi ci émission bi macha allah waaye soo ko fekkoon tey ci jumaa ja sax ngay gën a kontaan ndax it lii mën naa ni euh, pastéefam rek moo ko ci indi ndax it euh, mënoon naa toog rek xaar waxtu julli jot. ñu ne ko imaam kaay julli mu julli duggaat ci jàkka duggaat këram xaaral wax ci julli waaw mais eh, yi deful loolu dafa bi mu jàngee xam-xam ba macha allah lu doomu soxna di xam-xam na ko waaw macha allah lu doomu soxna di xam-xam na ko nekk eh, ak macha allah waaye eh, yamul ci loola fi ne lii mooy li mujj ci activité am. ne ni soo ko laajoon ci wàllu céréale xaw ma dugg na ci am déet wàllu wàllu céréale. nu ñuy defaree sànqal ak yooyu tey ji am na ci xam-xam boo xamante ne macha allah. waxtaan wi il ñu yaatu ko ci yeneen i émission waaw waaw waaw soo ko laajoon taw yi tey ci wàllu même affaire Orange Money yi yëngu na ci fi mu ne nii soo demee seen village fi ñuy wax mbaaleen am na fa am na fa machine wal këram fii tam am na machine wal pose voilà pose mbaaram la jëloon su génnee ci jumaa ji wala jàkka ji daal di takku pekkees luuma yi defar ay sankar def ko ci ay sachet lépp di jaay kafe da doon defar kafe yoo xamante ni macha allah di ko livre di nekk ci grossiste kon boog xëy na lii ci li mu def nii ci bëgg ci ci bëgg-bëgg ci développement ak wàllu yëngam ak wàllu bañ a toog di xaar hàddiya moo waral moo waral lii waaw mu waral lii waaw waaw alhamdulilah sëñ nañu lool ah ñu teeroo fii ah ñu ngi ciy sant bu baax a baax jërëjëf. lu lu yéeme la ndax mas naa koo gis nag ci ah, Mama Africa ñu naan ko Maam pend Diouf waaw mu di nooni mais nooni bi kañ nga ko fi indi nooni bi yow eh, lu la xiir ci nga indi ko ci tool yi. Ah, sëñ Euh, dafay garab bu am solo sax mu njëkk laa wax loolu yàlla dafa na garab gii ma jàkkaarloo noonu la waaye daanaka bi mu toll nii dix centimètres laa njëkk a xam noonu. booba yaa nga fan. maa ngi sama kër ci daar ji. sama benn wóolare damaa ñëw këram mu yëkkati ko ni ma garab gi daal noonu noonu la tudd gis naa ni dama ko bëgg a yar te xamuma fu mu ko yar yaa ma ci doy bëgg na nga téyel ma ko. muy garab gu ndaw léegi nag garab yàlla da dogal mu barkeel ma turi ne sama xel ba ma daje sama benn wëndër buy wër si waaye mu ne saa yi garab gu naan noonu garab gu garab gu di ko tagg man ko waaye noonu am ko te laa vérifié nag ba gis ba gis ba gis kii jëmmi garab gi ne ko man am naa ko am garab gi wax kon ba muy tonni daanaka cinq centimètres ma yor ko nag ba mu tonni autour quarante centimètres léegi est-ce que gëstu ngeen ci noonu yi lan lay njariñ li mu am. waaw gëstu naa ko ci ay nit ñu ko am ndax dama doon def man ginaa am naa garab gi ku ma digg ñu am nga ko dama ñëw sa kër. Ah, na nga seeti maam Penda Diouf de. naa ko seeti naa ko soo yàlla na ma xaar naa ko seeti waaw ku gis ne am nga ko rek naa ko seeti muy Thiès muy Somme muy cité euh, ouvrière mhm. dëkk gox yu bari ci Thiès daal am na ko waaw bi ma demee. ma gis ñi dafay bari ay dumuy fajj mais en même temps ma dugg ci internet bi ci youtube bi gis jang historique bi. momi non la fa tudd. waaw non la fa tudd boobu ne N O N E. ma ma ma ko comme arab la gëna xam jang ko dama gis ni euh, Pologne polonien yi ñom ñu amon garab gi di ci daa daa ci fajj ci xobi dem ba yag ñu fajj ci xasmi mi ñu gis ni ren ni day faj ba yag en même temps domi dañuy dañ ko tuddee anti cancer anti diabétique euh, tension bi yéeg tension waaw mooy doom bi ngay gis ne waaw doom bi nii doom bi kasaar ko defee fi mu nekk ne ñor na am fi ne nii mënees na ko jëriñoo moom bu xawee am son rek mën naa dem nag ba xaw a am giiri tuuti xaw mel ne du giir wala verte bu foncé euh, ci lay gën a baax waaye même boo ko daggoon nii mhm. des na ko mën a jëriñoo boo ko doom bi moom moo mën a tiim nii sax boo xoolee ah, euh, boo xoolee doom bi ah, waaw moom moo nekk nii hmm. boo defee nii doom bi. waaw di yéeme fii nii mënees na ko def nii. Ah. xaw ko ñoom di ci ñam tuuti tuuti. waaw xaw ko ñoom def denc rek. waaw nee na eh. boo ko tëjee hmm. day sotti liquide. waaw d'accord day génne ndoxam boppam. Hmm. léegi nag ndox moomu. ndox mi anti cancer la. lépp lu jëm ci wàllu dënd. dënd fi ne eh, dafay yàggagul moo tax ndox mu bari ah, bëriwul fi ndox mi ah. waaw boo si ñamee tuuti rek. tuuti nga ciy laal hmm, tuuti rek tuuti nga ciy. bu la neex bu la neexee naan lépp. mu naan lépp <laughs> Matar noonu laay naan nii de. ah noonu ok comme ça Russie ah, neex na de. waaw ni muy hmm? ni muy guubi nag. guubee nekk nii guub na daanaka moom rek moo ko am. te bu eh, bu seddee dàq. bu seddee dàq ma moom day xeeti cancer rek. xeeti ulcère xeeti yooyu ne si dënd. nekk si dënd da koy tension buy yëg buy wàcc. Mhm. da koy da da si dimbale. bi ma liiree ci kii bi am na sax tubaab yi ñu ko tuddee miracle ñoom jàpp nañu maanaam miracle de maladie maanaam waaw dafa dafa dafa waaw miracle la lu lu lu yéeme laaj ci wàllu ci wa ci euh, kii euh, ci wàllu faj moomu. moo tax bi ma ko defee ci arab ñoo gis ne polonais yi faj nañ ci ñaari junni at. noonee ngi foofa. di faj ci ci bi ci xob yi ci garab yi. américains yi door koo gis ci ñoom américains yi ko gis ci ñoom jënd ko ci ñoom euh, six mille six cent mille dollars six cent mille dollars waaw. jënd garab gi. te noonu ko noonu laa gis ñu bind ko ci Israël six cent mille dollars ban ko six cent mille dollars waaw bi ñu ko jëndee noonu. Hmm. ñoom am ci genn garab jëmbat ko Amérique di ko fa yaatane actuellement moo tax américain boo gisee am na xeeti boisson yoo xam ne ci seeni i eh, yi ak yu mel noonu seen i pharmacie yi dañ ko siy jariñoo ñii dañuy dañuy dem ba da si defar ay ay ay ay ay ay comprimé di defar ay sii di ko naan garab yu am solo la man gis naa def naa si tajriba maam expérience am na lu ma daa yëg moo gis naa ne gis naa ne da koy faj waaw noonu noonu loolu mooy de boo gisee boo bindee noonu rek ci internet bi yow di ko jàng bopp na jàngal yu bëri bari gis naa ñu si faj ñoo xam ne daanaka lu tuuti rek dañ la jaay lu tuuti rek dañ koy jaay deux mille six cent su ko defee lu yéeme la gis naa it buñ ko sottee liquide bi noonu muy faj en même bi day faj matière bi am na ñoo xam ne mu noppi matière bi dañuy jël boole ko karité bati ko suñ ko batee moom kii di ko farate fuy métti mbaa xeeti xesan xesan mbaa xëy na ak am daal ko faj articulation ay xeeti altos def naa si benn expérience ci jamono corona bi ah, bi mu jigéen ñu naa ko amu koron xam ne day day day téye sa gorso bi ah, mus na maa daal amu koron boobu xam amu koron xam nga waaye damaa xëy daal jóge màggal Tuba sama fii di miti sonal ma yaakaar ne soj la ma ne lii du xam naa soj dama dugg si tool bi suba tey rek sama xel na fi may xaar ma dagg ci ñaari xob waaw boole ko xobi yi tuuti limon rek dem baxal ko togg bu ñor waaye ma si moo ko ñoree ma xeele ab kaas naan ko ci sensé rek amul ay xaar ci sensé daa wàcc ma gis ku mu faj rek ma defal la ko ah, ma gis ni mu mu mu dëñ waaw ma gis ni mu dëñ moo tax ñaari ku am ay infection yi mais boo ñëwee man au lieu que may sonn su ma la joxee kii nga nga daal di wér bari waa na sax ñu am tawat yi métti wala xet yu mel ne ne ko joxee wax dëgg yàlla dañ si sant yàlla waaw ah, dañ si sant bari nañu bari garab ndax man damay yëngu ci wàllu garab wàllu faj médecine médecine traditionnelle waaye gis naa ne kii moom niñ ko tuddee maanaam ñi ko tuddee miracle jumunu waaw ba bari na ay njëriñ waaw bari na man la daal waaw bari na njëriñ faj lu bari bi ñi ko xam nag bi mu nekk lu tuuti nga xam ni un matul un centimètre ci laa ko jëndee woon quarante mille garab gi noonu waaw waaw ci laa ko jëndee woon quarante ba tey nag bii moom la bii bu ndaw la bii dama waa ji nga xam ne moo tolloon tuuti ma di ko yor ba nëgë ni tax mu xaw a ne dama ko tuxal fi mu nekkoon daa ko tuxal ni moo tax mu xaw a stressé dafa xaw a stressé tuuti waaye la da da da ñi koy waaw mi mi ngi mi am i doom. waaw mi ngi meññ. waaw bëgg naa it incha allah mu law fi ndax comme njëriñ la te askan wi dañ ko war a jëriñoo nu fi gën a bëri gën fi maa ngi waajal benn pépinière boo xam ne ay doom rek laa fay def pour ji ko su ko dañ mën a yaatu ci réew mi ndax yar yaatu gu fi lool yaatu gu fi lool waaw garab gu am solo la am na ñoo xam ne couleur bi mhm. boo gisee day nuru ñi naa ah, karasol waaw gis naa it ñu koy tubaab yi dañ koy def ci seen i vitaminate hmm. kon buñ da togg lu mel ne supp au lieu que ñu dagg ay pomme de terre xeet yi mel dañu dagg nën fi dagg doom bi nii ak téeméer ah, waaw doom ah, ko ci biir. xob yi moom. xob yi moom da nga rek xob yi di ko naan xob yi day faj massa day faj ah, waaw ay bakkan yu fatak ay dënn yu miteeg ay xeet yu mel ni fatak ay infection yu biir yu biteeg jigéen ñi am doom tamit seen meret arrété yëpp gis naan dama ko ci traité te ay métti di tànk yu mel noonu waaw ay baat yu métti di fat ay angine kasaare yi gis naa ne. waaw moom daal garab wax dëgg yàlla bari na ñaan surtout nag garab garab bu dem loo xob bi dem ba bëgg a sonn xam nga naa garab léegi-léegi xob bu son bi day ëpp doole bu wert bi waaw ah, ah, léeg-léeg day ëpp day gën waaw uh-huh. que bu son bu son bi moom surtout nag yi nga xam ne xas nañ wax di ba tëlu fii waaw ah, moom dañuy am njëriñ lool sax am njëriñ lool waaw moo tax maa ngi ci waaw comme yee wadd suuf bari na ñoo xam ne yére laa leen di am ne wolof naa borom bopp nga xam ne bopp bi daf fi mu toll ne dama jox ko mu tàggu moom ah, kon noonu am na solo kon moom ak ak neveda ah, yi dama leen di gën a favoriser ci tool bi waaw neveda yi na du lu dul dee mukk waaw waaw du dee waaw ki ma ñoom sax dañuy doo dee doo dee doo dee waaw léegi nag gannaaw bi lan ngay def ci tool bi waaw ah, tool bi comme ni ma waxoon ci wàllu jën yi wàllu développement fi béy papaye papaye nag récolte na récolte naa si jaay si ba wax léeg-léeg mu fajal ma sama yitte yu bëri. gis naa ne am na facture courant beeg ñoom waaw facture courant beeg euh, ciment bi ñuy jënd ci sànc beeg euh, daa dund ginaar yi xont ndax am na dañuy yëngu ci wàllu ginaar ginaar yi dàq jàpp xam ginaar yi ordinaire yi day bëgg daa mel ni day xaw manqué Sénégal. waaw manqué na dañoo gën a favoriser ginaar yi am na ko jógee Dakar nee keroog dafay ñëw nee na ginaar gi di sab da koy neex nee na boo toogee Dakar sax doo dégg yu mel noonu. waaw te yii dafa am solo ci kër. dama dama ko si dama koy box bu bu yàlla dogal ma ñëwaat fi bëgg naa si am ay téeméeri téeméeri téeméer bu sobee la bu ko defee nag yooyu dañ ci yëngu boo defee nag matière yi bi yi ngay tuur gannaaw dañ koy lekk dama gis ne gis bi en général garab bu ko bu ko njanaaw yi bëggee rek njariñ a ci wax Ah, moo tax yemb bari lu muy faj. yemb yemb lem ji quoi. yemb suñu borom dafa yemb ndax baat bi dafa barkeel. wa awha ila rabbika wa awha ila rabbika wa awha rabbuka ila nahli hmm. ani taqsi min aljibali buyutan wa min asijari wa mimma yahrusan min kulli samarat maanaam borom dafa ni dafa wax yu yi ñu jàpp seen dund ci garab yi xam yemb day ñëw ci garab gi lekk si dem ci mbante maare lekk si. dem ci papaya dem ci limon dem ci karasul dem ci yeneen lekk ci lekk yu bëri bëri bu ko defee nag yooyu ñuy génn nag suñu borom da ci génn saafara nga nekk day nekk shifaa'un wa rahma moo tax yemb moo tax lem day faj. lem day faj bu bari lem lem piir pire. lim mana fajj faj garab yu bari bari mën ñu ko faj. xam nga gaay nak leg leg ñu di rax sikkel ko. wa da ngay am sa poto butandar ma sax. dëbb ma wala jam sa dakar sukar ko ba muy nidde ko boole ko yu xam nga nak nag wax dëgg yàlla yu baxul way nak loolu baxul mi melni nga yor litre yok ko ci euh, juroomi litre meew xasse ko ni dama jaay so pir ya ngi war da da bok daa bokk ci war loolu baaxul nag loolu donc kon limong ji it mi ngi fii limong ji mi ngi fii limong ji dan ko dan ko fay def pour mu mu mu meññi ba mën a li ci génn ci njariñ ñam bi ji ñam bi ji bu am solo la day nekk variété boo xam ne ndax ñam bi dañ ci xam nii lay toll waaye ñam bi dalay day màgg te dalay keral te doom bi dafa rëy waaw ah, ah. bu ay yoon sax sama waa kër ci lañ ndawaloo sama waa kër ci lañ ndawaloo moo tax na mu jëmbal ko fii pour mu ker àndataana day wét li bër bi waaye ci kanam tuuti dafa am benn variété papaya bu ñuy wax vegan moom lay wut waaw variété boobu mën naa fi def ci biir tool ay yu bëri bëri te du ko xatan te day domb day rëy xam nga papaya daa baax ci yaram bari na docteur yi garab yu ndey bindal boo seetee ba si bi day am papayin am papayin waaw boo koy naan boo koy lekk day gudd fan day guddal fan te en même temps da lay protéger ci wàllu jalis yéen a xam garab yi daal ñu ngi ci garab yi. lépp garab yi ñu ngi ci garab yi garab yi ngi ci garab yi mais ki yar war naa def protection euh, euh, parce que nga nga doom am nga def ci euh, engrais xam nga engrais lay def posen nga waxuma sax maam doom bi day màgg tey fii ak deux jours trois jours am ku ñëw ne am nga papa yi ko waaw mu jënd ñaari dem mu lekk day nekkaale poison boobu waaw. waaw période boo xam ne boo defee poudre rek yooyu bala ngaa jaay say mango wala ngay jaay say kii bu boobu période weesoo. waaw ba nga xam ne am ngaañ amatu ca. ngaañ amu ci door koy jaay. nga maximum 15 jours mbaa lu ko ëpp. nga roose garab yi ndox kese kese kese. nga xam ne maladie yi nekkoon maanaam yàqkat misbalance yi nekkoon ci biir ak xeeti gunóor yi bari dem nañu. nga xam ne ndox bi léegi ndox kese moo ne ci papaay bi. amatul benn toxite bu ko defee na nga ñu nga mën koy lekk di ko jëriñoo ne fi ne bariwaana ñu ne papa bi day faj nga jël ko lekk mu jëral la benn feebar boo yëgul nga di ko lekk fekk engrais ba nga lekkoon daa dugg ci biir papa indil ok mi ngi mel yi pondos yi nga vacciné ko léegi trois jours am ku ñëw jënd ginaar ramas dem ngénte ñu bari lekk ci seen i biir di daw wala seen i tànk di métti te fekk ginaar ga vaccination ba ginaar ga da koo lekkoon te génneegu loolu day nekk problème yoo xam ne day posé maa ngi koy fàttali ñi yar ñu xamaale ko a it ANCAR kon tey boo defoon tey vaccination tey war ngaa bàyyi 5 jours wala 6 jours nga xam ndox kese nga xam ginaar day naan di génne di naan di génne di naan di génne balam naanoon euh, lor ja dem na bu lor ja demee nag bu ko defee euh, ku ku ku ginaar di ko mën a jaay. waaw sax sëriñ bi xam nga. ñu ngi jege tabaski am na ñoo xam ne xar yi am na xont yi leen doon jox ak yooyu waaye moo tax rend rek lakk léegi tamit. ëpp naa def de xam nga loolu euh, lan moo nekkoon rôle yenn cour de contrôle dina ci dëkk bi di contrôler xar mi ndax bu njëkk dañuy seet xar mi dafa am ñu koy vaccin spécial suñ ko piqué dana wax ne fii le temps de jour bu ko rendee bu ko kenn lekk. boo defee ne yow mi xont sam xar di ko jox yenn médicaments yi rek boo dem ba tabaski des vingt jours ndox ndox ngooñ ripaas day fook nag bokk yi xam loolu euh, tabaski daanaka soreetul euh, euh, xont yi ngeen xam ne ñu ngi koy jox jur gi dinañ toll jamono jox maanaam booy jox xont wala ngay koy jox ay lu koy dooleel yooyu yëpp bu desee fukki fan wala fukki fan ak juróom sax dee ko jox ngooñ ak ndox rek du loolu nga wax sëñ bi. Ah, waaw ndox ak ngooñ ak ripaas rek su ko defee euh, poids bi du rus moom ci boppam du jeex te dana dindi bépp toxine bu ne ci yaram bi ndax fi ne boo weddee loolu mos na jëfandikoo benn bëy dañ ko togg bëy wexat nima ndekete booy bi dimbi daa dem ci garabu nii maam ba lekk ci bu suur ñu xëy ñu rendi ko waaye togg googu yaakaar na xanaa ñu sant sekk jaw jaww dañ koy jox rek <laughs> ndax mënuñu ko muñ waaye mujj sotti loolu nag moo lay xamal ne kon day des ci yàpp wi su ko defee nag bu baax del joxe ndox kese mu ñu naan bu baax di jox alim euh, kese di jox ngooñ kese su ko defee du rus bi du te dana am njëriñ daal ko dana am njëriñ waaw loolu am na njëriñ naa ne garab rek tudd nañ ko fi ah waaw mii na ah, yeneen xeeti garab yi si des nag mooy xeeti garab yi ni faj rek garab yooyu moom garab yi cosaan yi dëgg yàlla dañ ko dañ ci yënguwaale yi faj wàllu ndoxum si teeg. xëy na il faut ñu am beneen jotaay. waaw bu soobee sax waaw xam ne rek. waaw loolu waaw ñu waxtaan ci. yi fi sax rek yi fi sax moom mi fi yi fi sax yi fi sax bu njëkk na tool wax dëgg yàlla daanaan fi béyu mbéyu maraîchage ah, comme kombur navet carotte persil. léegi dootoo am jot googu. nee naa waaw amatuma jot googu waaw ah, jën yi nangu na ma. jën yi nangu la jën yi nangu <laughs> waaw kon nag euh, ñu dellu euh, santaat rek euh, Matar Kassé ñu dellu sant bu baax suñu sëriñ bu baax bi di sëriñ Mor Talla Guèye Baye Mor Talla sax lañ koy ooye Guèye waxtaan wi nag liñ ci. doon def mooy rek lu gën a jàppale bokk yi ñun ñëpp ñoo moom suñu réew mii di euh, Sénégal nuñ ko mën a defaree rek ñu defar ko Euh, li ñuy wax nag sécurité alimentaire fexe ba dund bi dootuñu ko jéggaane wala buñ ko jéggaane tuuti tuuti la ndax dañoo am suuf si sëriñ bi wax na ko xam nga fii nga nekk nii macha allah lu bare bari mën nañ ko fee def te suuf yaa ngi fi kon jant baa ngi nii xam nga tàngaay bi nii metti na lool Matar Kase ngi fomp rek waaye nag muy noonu rek euh, kon nag euh, ñu sant la. sant bu baax it suñu xarit bi commissaire kamara waaw moom itam euh, moo ñu li yoon wi ah, macha allah eh, jërëjëf. mooy ah, ñu ko sant bu baax di ko di ko ndokkee ci liggéey bi di ko ñaanal yàlla fa mu bëgg àgg mu àgg fa sunu dëkkandoo bi Lom maanaam Lom actuellement ñoom ñu dañ maa jàppale ci bërëb bi ak sëriñ Xaadim si ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci liggéey bi wax dëgg yàlla jaax taxaw na ci wax ndax moom moo tax ñu jot terrain bi ak sunu mosoon yi nga xam ni buñ soxlaa di jëm ci wàllu bassin ñoom dañuy jàpp ne daara ji la ñuy liggéeyal. ndax fi daari alxuraan la ndax li fi génn lépp ci daara ji la jëm après nañ gis daara ji. Très heureux de vous accueillir euh, sur ce plateau du dimanche soir, euh, Madame euh, Laetitia. Vous venez nous parler de la conférence inaugurale Afrique AI, qui est une conférence sur l'intelligence artificielle que vous organisez avec le CRDI et la GIZ à Kigali du, du, 12 au 14 juin prochain. nous sommes basés à Dakar au Sénégal depuis une quinzaine d'années et nous travaillons avec les gouvernements, la société civile, les médias les mm. solutions sont basées sur ce que vous cherchez le plus sur le net, qu'est-ce que vous aimez. Donc c'est nous qui produisons cette intelligence artificielle. Euh, c'est un mot lingala, je crois, qui veut dire se rencontrer. Mm. <laughs> On avait des idées, dont une qui s'appelle Terre, qui était une encyclopédie digitale africaine, qui regorgeait plus de 15 000 mots euh, dans 12 langues africaines, traduits vers euh, le français. Et c'est de là qu'on a trouvé le mot un justement. Donc c'est ça l'idée, c'est de faire rencontrer les entrepreneurs, les étudiants, les innovateurs, afin de faire avancer les choses J'avais des, des, que j'avais reçues de certains maîtres. J'ai voulu tout regrouper ça sous forme de livres, et que ça soit simple à lire et facile à, à digérer. Comme disait Youssou dans euh, une de ses chansons, si vous allez à l'étranger, dans toutes les instances internationales, les grandes instances, vous verrez toujours des Sénégalais au top. Mm. N'est-ce pas Des leaders, des, managers qui, font d'excellentes choses. Et ces gens-là, il faudrait aujourd'hui qu'ils puissent revenir participer au développement de notre, de notre pays. Vos rendez-vous débat sur votre télévision nationale. Retrouvez tous les mercredis après le journal télévisé votre émission Le Point. Un rendez-vous hebdomadaire avec Ousmane Garifay pour décrypter l'actualité. Vendredi, Anne-Marie Gomis dans Kassabor ou Abdoulaye Barry dans Saïtou. Deux émissions à retrouver en alternance pour des analyses sans détour sur des questions de développement. Pour terminer la semaine,